dama naan lu jaaxal sénégalais yéem sénégalais loolooy faral di wax kéemtaan looloo waral ñu naan Serigne Fallou kéemaan jërë ngeen jëf mbokki internet Allô senegal jëmm ju tedd ji ñu leen indi laatal yaakaar naa nekk na kuñ dul présenté ci réew mi guy ni mu ragloo waaye kuñ naan borom guy ga ca Joal yaakaar naa boroom xam-xam nga boroom tuur nga borom asraar nga waaye tamit borom boroomu may nga li waral nag ñu seet si ko. Ousmane Sonko dafa fanaan guddeem gu njëkk ci kaso te nag jëmm ji ñu jàkkaar lool nga xamante ni ku ni Joal wax xam-xam ku ni Joal wax mystique ku ni Joal wax gàllaaj wax xarfa xuufa jëmm ji bàyyee ko fa nekk fa nag nekk fa ñëpp nangul ko kon nag am na lu ne ci moom ndax semaine passée ba ñëwee am na lu ñu junjoon ci gannaaw concert u bi nes tuut la xewoon ca mbëkk ma commencé xew des tuut accident yi tàmbali ba keroog ca Louga 23 morts ñu nemmeeku ko mel ni waxam ji dafay dikkaat saa su ne Serigne Fallou Kémane tey dañ koo seet si ngir waxtaan ak moom ci bés bi ñu arrêté Ousmane Sonko di lendemain jour Tamxarit du hasard ñu jàpp ci Ousmane Sonko du hasard Ousmane sunko fanaan premier guddeem nekk ajjuma ca kaso ba am na nag lu muy wund am na lu muy tegtal gis nañ nag ki nga xamante ni moom mooy général capitaine wala sax capitaine Traoré digganteem ak Macky Sall coow li tàmbale naa jug. li ñuy waaj li ñuy nës loolu lépp tey dina leer ndax Serigne Fallou Kéman ay révélation la indi ba ci Pape Alé Niang nga xamante ni jot na jot na convocation waa section de recherche convoqué nañ ko suba ci dimanche bi lu nar a xaar sénégalais yi ci loolu lépp balaa boobu dañ koy bàyyi moom suñu sëriñ bi suñu kilifa gi suñu xarit bi suñu soppee di Serigne Fallou Kéman mu nuy mbokki internet yi nga xam ne ñoo koy seetaan sëriñ bi bismillah an baqiyati salaf wa qudwati alxalaf faqri diini wal walad ahmadu muhammad ibnu habib allah asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi topp ci Sunugal 24 euh, Allô Sénégal bi maa ngi nuyu ñëpp bu baax a baax te di leen siyaar di jéggalu tey nag xëy na euh, bu bu bu jotaay bi neexee it xel yi taxu ko daal moo tax daanaka euh, man mbokk personnellement ak yi nga xamante ne moom laa gis ba tax ma yëkkati sama kàddu toog ngir fas yéene koo laay biire askan wi nga xamante ne ñoo may teewlu wax dëgg yàlla bu sama xol euh, féexee sama xel dalul ci réew mi maa ngi jéglu bu baax kon képp koo xamante ne boroomu njaboot nga donte benn mbindeef képp nga yilif ci àdduna maa ngi ñaan lii may bëgg a wax ci jotaay bi na nga ko déglu bu baax ndax dina la amal njariñ ak koo mën a doon ak noo mën a yilifee parce que fi mu nekk ni moom jot na sëkk ku nekk jël say responsabilité bopp li wolof di wax naan nu golo xam na bootee doomam mu ngi bëgg a jot fi mu ne mm-hmm. maa ngi nuyu ñëpp nag di siyaar ñëpp di leen wax ne buñ ko toppee rek man boog li ma ci suñ borom wan dama am ndigalul génn laaya biire ko bokk bokkook sama mbokki jullit mm-hmm. yëpp ci kàttanu suñ borom danaa ko def ci kàttanu yàlla maa ngi nuyu ñëpp jërë ngeen jëf asalaamaaleykum lu mu wax Sénégal teg nañ ci seen bët luñ ko mës a wan mu am ci ndigalu génn wax ko ba mu ko waxee bañ ca tollee xam nañu Serigne Fallou kii man waxoon na ko te nii la ko waxee woon nii la amee moo tax tey émission bi nañ ko xaar ndax révélation yi nar naa yéeme nar naa gudd waaye tamit nar naa kéemtaane sëñ bi fi ma ko bëgg ñu jàllalee ko si sa digganteeg guy gi guy gi ngeen di gis ci image yi raglu na nga dem ba sax ci ca nekk ca biir ñi ngi naan booy faj rab sax ca nga koy fajee ñii ñi ngi naan rab amul ku la ci ëpp xam-xam ci réew mi ndax kuy faj àndandoo faaw nga amee àndandoo sëñ. waaw guy gi moom mbindeefu yàlla la comme ni mbindeefi suñu borom yi baree rek yàlla def ne maa ma yaalamu junuuda rabbika illaa huwa samay soldaar bari na bari goo xamante ni kenn takku ko ku dul man yàlla guy googu lenn la ci soldaar suñu suñ borom yim ñu booleel ñu ànd ak ñun ngir liggéey bi nga xamante ni ci lañ nekk di borom tamit mu kàttanal ñu rek di ñu sàmm saa su parce que man ni ma jàppee sama bopp mooy cadeau pour sama waa réew ci buñ ma xamee dëgg-dëgg ndax yàlla seede na ne lii nga xamante ne moom la ma yàlla baaxee amu ci dara loo ci xamante ne soxor ak bëgge mu ngi ci ci sama xol bi mhm. bu ma sañoon jullit ñépp ñoo ciy jariñu mhm. moo tax lépp loo xamante ni si ne laaj na ko ngir ab jullit jariñu donte man damay loru bëgg naa na ñëw moo tax mbindeef yooyu ngeen di gis ma ànd ak ñoom ci liggéey beeg yëpp ak lu mën a xew ñi ngeen gis ak ñi ngeen gisul yi ngeen gis dañoo am jëmm taxaw rek waaye yi ngeen gisula ko ëpp te ñoo leen ëpp puissance loolu la yàlla dogal parce que borom yi mbir moom noonu la ko suñ borom dogalee donc di ñaan suñu borom rek mu sàmm ñu kàttanal ñu ba yéene ji ñu am ci suñu mbokk jullit yi suñu borom dogal ñu mattale ko ñu. est-ce que du looloo tax ñu naan wàllum wàllum rab yaa ci mën ci réew. waaw du ma ne maa ci mën ndax bu bu yàggee damay fëgg sama dënn te man loolu baaxoowuma ko waaye jàmbaar laa ci te incha rab rabbi képp koo xamante ni ñëw na ci ci man ci wàlluk rab dong moo la jaaxal yaram wi fasu na ma ngi lay géntuloo mu ngi jaxase sam xel boo demee ba war a joteeg sa soxna mu mel ne sa awra dellu mm-hmm. lépp loo xamante ni si ne yu jëm ci wàllu googu la xamal ne àndandoo rax na ko te maa ngi waat ci sama borom bi bu fekkee la ma sama borom may nangu ko mm-hmm. kenn du ci ñëw ci man def ci ñetti guddi te dañut ci yow wàllu rab wàllu rab ak bu mu mënti la yàlla dogal parce que buñ dee rabe rabe lu man lañ fiy fekk te man yaakaar naa tabarakallah yéen man ngeen ma kii nii nii waaye ñoom yaakaar naa duñ ma kii nii nii nii <laughs> waaw la mu dëxëñ ci biir yaakaar naa euh, xel même sax bu ko dajul war naa mën a xalaat la mu bëgg a wax ndax sëñ fallu ah sëñ Fallou national la sëñ fallu senegal la kado bi muy wax ni moom la doon xam nañ ni kado la pour senegal sëñ bi sa loxo yu tedd yi bopp boo ko teg lu mu métti métti boo ci tegee ñaante la nga cay ñaan boo ko tegee bopp ba sedd distance sax da ciy faj bopp buy métti bopp buy métti yaa ngi ciy def résultat yu mucc ayib sëñ waaw mooy ni ma la ko waxee rek nee naa leen nit li nga xamante ni daf laa jege te nga war koo jariñoo day mel doo ci am soxla dëgg la nag man lii ñëw ci man sax attanu ko mhm. waaye eh, ngir ñi nga xamante ni ñu ngi may déglu rek laay baaxee kàddu yooyu lépp loo xamante ni maa ngi koy yëkkati ci lii ma suñ borom baaxee yàlla seede na ne jëmmi suñ borom ji doon nga tax ma ko def mhm. mhm. du dërëm du tàgg du jaay soxlawuma ci dara na ajo yi faju rek moo ma ñor bi ci topp muy wàllu bopp boobu ngay wax waxoon naa leen ko na ma ko waxee juguma ci muy téye sama loxo yi ci bopp mocc ko ba bàyyi ko te seddut bu ma bu ma neexee ne mënta nekk ndax suñ borom lu ëpp waaye at a ngi nii maa ngi koy def te gisaguma ku ma ci téye am na ñoo xam ne sax da leen di moccal ba war leen a jox ay garab far duñ dellusiwaat <laughs> te laajuma ci kenn benn dërëm yàlla xam na ko dama koy def rek te jëm yàlla ji rek li liñ ci war a fayeeku maa ngi koy bàyyeek suñ borom man zal ladi yuqridu llaha qardan xasanan fa yudaifuhu lahu adaafan kasira kon yàlla rek laay lebal lebaluma kenn kon noonu la demee wàllu bopp bi métti kum jaaxal ak kum mën a doon ak nu mu lay mën a sonalee même boo nekkoon ba bitim réew foo mën a nekk ci àdduna bi woo ma rek incha allah ma tàqalikoog yow ci kat borom tabaraka wa taala waaye sëñ bi buñ jugee ci ñaan yàlla dañuy ñëw ci faju feebar faju faju nag bu buñ ko waxee ñu bari mën nañoo feebar ñëw faju si fii waaye feebar gi nga xamante ni ñu bari dañ koy am ruus wala sax gàcce dal leen ngir ñu dem faju ji te yaa ngi ciy def résultat yoo xamante ni wax dëgg yàlla bëgg naa ku ne jëriñu ci muy wàllum néew kattan nekk na feebar boo xamante nee nga li koy joxee da bari na ci jamono ji. bari na trop gis nga sama génn ci internet ginnaaw bu yàlla wéyee ci loolu la soqee ko woon muy wàllu kattan parce que suñ borom daf ma cee may xam yoo xamante ni. yàlla xam na ne même ki nga xam ne dem na ba awraam bu ko laalee mook éponge ñoo yam mm-hmm. yàlla seede na dama koy jëflanteek moom ba nga xamante ni da koy amee nu kawe njortam moo xam muy cib guddaay moo xam muy cib dëgëraay moo xam muy ci yàgg mm-hmm. ci kaw soxnaam wallaahi lancim ndax xam naa ne am na ñoo xam ne danañ ko dund waaye ruus nañ ko communiquer ak seeni jegeñaale loolu moo ma motivé woon ba taxoon ma dugg ci internet ngir bëgg bu ñu gisee sama numéro bi wax dëgg yàlla doctor moom doo ko nëbb jàngoro moo tax wàllu kàttan nu mu leen mën a dikkee moo xam boo wéetee di yëg sa bopp bu soxna ñëwee ba nga jàkkaarloog moom sa awra delluwaat mel ne sax dafa gën a dellu moo xam boo demee ba ba nga xamante ne moo même boo yëgul dara woo ma bu fekkee ne yaa ngi koy yëg waaye amee woo ko ni nga ko bëggee woo ma ci kàttanu suñ borom day tàqalikook yow ba set wicc incha allah rabbi ak nu mu mën a demee ci wàllu googu bi ci topp nag mooy seen soxna yi mm-hmm. na ngeen leen sàmm te it ñiy jëflanteeg man tañ am soxna mm-hmm. saay saay siy dem ci soxna si jàmbur yi nañ def attention hmm? am na yu ma ciy def yoo xamante ni képp koo xamante ni si ne jëfandikoo na ko raxasee ko sàkkaraam mm-hmm. sëy ak soxnaam beneen sàkkara bu ci dugg bu dul boobu maanaam sàkkara mooy awra rek awra góor beneen awra bu ci dugg wudul boobu falay lay bolokew saafara sa nga xamante ne moom la ka ko raxasee woon sàkkaraam defee saafara soosu rek moo leen mën a tàqaliwaat kon saay-saay siy dem ci soxna si jàmbur yi nañ def attention ñi nekk bitim réew di liggéey lu ñu am yónnee seen soxna yi seen soxna yi tamit ñenn ñi na ma yàlla jéggal xaw a doy waar di di di moyaka naka sudul noonu mm-hmm. jëflante leen ceeg man billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa ku ma ci jox ba nga jëfandikoo ko nga nekk bitim réew nga nekk ci réew mi sa soxna moom pare na ci mooy lii moom ko xam wa ilaa bu dëgëree bopp ba def ko soobee yàlla du deñ mukk te wisoo ci saafara si kon lu mën a doon da ci jot même nit ku weex sax laa wax waa ñi soxna si tubaab bu ñu yaakaar ne bokkuñ ci ñëpp a ci am loolu lu yéeme la maa ngi ko tàmbali di joxe te mu ngi bëgg a siiw moo tax kon gars yi xëpp ndox soxna si jàmbur yi def leen attention parce que maa ngi ci seen kaw. lu bon la bañ mu tasaaroo moo tax faw mu ne ko ndax sëñ Fallu li ñu naan kéemtaan la moo tax ñu naan ko sëñ Fallu kéemaan ndax kéemaan gee bari ci jëmm ji. dernière question doog a dem ci actualité coow li bari na ci li nga xamante ne moom mooy nopp boole ñaari nit ñii ne nañ mënuñu ko ñii ne nañ jafe na waaye lu ñu ci jaaxal mooy li jafe fépp boo ñëwee fii dafay yomb est-ce que du sëñ bi sax dafa am ay jinne yoo xamante ni wala dafa am yoo xamante ni moo koy yombalal liggéey bi ndax ba ndax li jafe bu ñëwee yomb fii kat day doon kéemtaan tamit. li ngeen may ji moom muy wàll jinne ak yooyu ak yenn saa yi col gi ni muy soppi ko mm-hmm. eh, yooyu moom garaawut parce que man lañ ko mujjee jiiñ ci fi ma bokk. même ñi nga xam ne ay sëti sëriñ bu mag bi lañ sax te bokk ci kii sax yenn saa yi nga gis nit ñi di leen jiiñ yu mel noonu moo tax man bu ngeen ma koy jiiñ tamit du garaaw <laughs> dañ ci am cër da ngaa xaw a kii dañ ci am cër moo tax ci gaay yooyu le yàlla boole ñoo ñoom wax dëgg tabaraka la naa ci bañ a sori wàllu noob googu ngay wax wax dëgg yàlla lim ma jaral man bëriwut waaw ah, moom ñu ngi ciy def résultat yi ngi ciy def yëpp nga ni lépp ma jaral bëriwut nopp moom daanaka ñuy jàng yéeg sax fa la ñu war di tàmbalee parce que nopp moom du dara. boole diggante ñaari nit loo gis mu yàqu rek xamal ne am na lu ko yàq loolu ngay seppi rek mu dajaloowaat <laughs> maanaam diggante boo gis mu neexoon ba mu yàgg neexut. Mhm. mbir la rek sama ñaari loxo yi fi mu ne li tax booloowut. kurus gi la. bu ma nee nii rocc rek dañuy daal di booloo. <laughs> yëfi du dara mbir la rek waaw. yoon wi ngay jaar la. yoon wi xam gi rek moo ci am solo alhamdulilah nag sa wàllu nopp moom tabarkallah maa ngi ñaan yàlla mu kàttanal ma ci nag yokk ma rek waaw waaye ci man ndamu moom bugguma ko. waaw waaye wax dëgg yàlla may nag daa xaw a kii nag dama dama ci yëg sama bopp moo tax yenn saa ma di ko ci sant nag wax dëgg yàlla. lim ma taw feexal daa bari lool. kon nag alhamdulilah noonu rek la demee tabarakallah waaw wàllu nopp moom kum ci mën a doon muy ku weex ku ñuul ñëpp a ci am woo ma rek bu diggante bi gàllankooroo ma saafara ko léegi nga dem sa yoon incha allah bul ni dégguma sama soxla jarul may woo sëriñ bi bul ni sama soxla rëy na sëñ bi mënu koo faj bul ni sax sama soxla daa tuuti ba aajawul ñaan ndax sëñ Fallu kéemta kéemaan ñëpp la fi nekkal dañoo tànn yenn ci ay question rek ñëw baaxee ko ko waaye li mu mën a liggéey li mu mën a jariñ li mu li mu am ci xam-xam bari na tey buñ ko fi tàllaloon guddi gi yëpp fi la ñuy fanaan ndax révélation yi ñuy xaar bari na sëñ bi balaa maa ñëw ci Ousmane Sonko keroog dañ fi ñëwoon nga am loo ñu wax ci gannaaw concert casserole bi nga wax ñu itam ci kaaraange ak réew mi ni nga xamante ni yaa ngi gis yuy ñëw ci réew mi mbëkk mi ñëw na dal ñu ni déet xel dem cal sa kàddu ga des tuuti accident Louga bi ñëw 23 morts xel yëpp na yar ne sëñ bi dafa mel ni moom la doon wax sëñ bi ci loolu la accident yeeg mor doom yeeg yooyu noonu. li jiitu. waaw mooy wàllu mbëkk mi. Mhm. ndaw yi nañ ci def attention mois d'août bi waaw bu 2023 bii dafa lëndëm. barke xaadimal Moustapha. képp koo xamante ne am nga sa doom mu di ca dem. waaw te nga bëggoo koo ñàkk na ko téye. parce que mois d'août bi moom dafa lëndam lu jëm ci wàllu googu ñi nga xam ne sax ñooy yëngu ci wàllu napp gi sax digaluma leen ñuy sori waxuma la ak nag ñi nga xamante ne dañuy jug ngir mbëkk attention de samay kàddu def leen ci ndànk de mboolem yi ma ci mas a wax ña ko caaxaane dañ koo gis wàllu mbëkk mi moom maa ngi leen di ñaan ndaw ñi sonn ngeen wax dëgg yàlla réew mi metti na mhm. te it teral seen waajur yi rekk leen ci dugal waaye it bu ngeen demee lor seen bopp nag boobaa ñaari a ngeen fi bàyyi parce que la ngeen daan forokus néew di ko jox seen waajur yi loola far na anam naxasaay boole ci gisatu leen gisatut loolu kon tumuraanke gi ngeen ko bàyyil moo gën a raw mm-hmm. kon bu mënta ñàkk def leen très mois d'août bi moom ngeen ngeen jéggi ko bàyyi leen ci xel de yàlla xam na ko te bu leen dëgër bopp bu leen ne nangam nangam parce que mbir mu ma gis la wax ko te man lu ma mës a gis ba wax ko suñ borom daf ma ciy dimbali kon def leen attention yéen ñiy dem ci wàllu gaal yi mhm. mois d'août bi teg leen ko ci suuf ngir yàllaa ko yonenteem ndax baaxut dafa lëndam te dafa fàtt te li ma leen di wax di ngeen ci xam dara ndax bakkan yu baree baree bare bari gis naa ko mu tuuru ak deret yu bari ci mois d'août hmm? mois d'août bi moom wax dëgg yàlla dafa fàtt te dafa lëndam moo tax kon il faut ngeen def très attention ngeen bàyyi xel waaw sëñ bi dañ koo jàpp yóbbu kaso muy vendredi nekk premier jour gannaaw gannaaw tamxarit mu fanaani ci wàllu mystique ak yooyu est-ce que amul lu mu koy yàq li mu koy yàqal dafa bari Ousmane Sonko ay mbiram kaso baaxu ci. dafay yàq ay mbiram carrément. bugguma sax di wax ci nit di dugg ci mbiri biiram waaye wax dëgg yàlla mbiri kaso moom baaxul ci ay mbiram. moom Ousmane Sonko moom Ousmane loolu moom nañ ko nañ ko nañ ko bàyyi xel bu baax. toj ay mystique est-ce que du soxnaam sax loolu la xam ci euh, yàq gi mu koy yàqal ci wàllu mystique ak yooyu moo tax démb mu xataraayu xataraayam métti gi sax donte ka nekkoon na koo xamante ni kenn daaw ko gis ci soxnaam kese ñi ko jege te xam dara ñëpp dinañ ci feeñ. Hmm? dinañ xam ne kii lii baaxut ci moom moo leen ko gën a xam moo tax lu ne la ko jaral ngir bañ faa dugg. waaw moo tax lu ne la ko jaral ngir bañ faa dugg moo tax du ma bëgg di sori ci diw xam nga diw dafa diis. moo tax du ma bëgg di ci sori waaye daal maa ngi ñaan rek bu fekkee ne mën nañ koo bàyyi. ñu bàyyi ko waaye nag xam naa ne du yomb damaa baax di wax rek. parce que fi mu ne dafa am luñ soxla. waaw dafa am ay liitar yi liitari yi liitar hmm? yuñ soxla. ci ay deret. dafa am ay liitar yi liitar yi yuñ soxla junj doy na borom xel moo tax waajur yi. waaw def leen bu baax a baax ngeen bàyyi xel seen njaboot gi. allahu akbar seen nguur gi lañ cee jël dañ koy paacoog seenu njaboot kon seen njaboot yi yéen ngalawaay téye leen leen ndax mois d'août bii ni ma leen ko waxee léegi deret yu bari ñoom soxla nañ ko ci ñoom ñi nga xamante ni ñooy xëcc jëm ci wàllu góor deret yu bari soxla nañ ko ci mois d'août bi moo tax fi mu nekk nii nag na xam ne ñoom duñ ca bañ dara moo tax ndaw yi ñi nga xamante ni man ak ñoom maase nañ ci ay at tañ déggal ma maa ngi leen di ñaan rek nañ toog ci seen pegg waajur yi yéen ñii sax di journaliste yi ngeen xam ne yéenay jëli mbir yi. def leen attention. waaw. est ko ah def leen attention faaw ngeen wattandiku bu baax parce que ñii am na luñ soxla man nag alerte rek laa man am na luñ soxla te bu ma sañoon duñ ko jëlee ci doomi jullit yi. man sax duñ ko jël sax ci doomi Sénégal laa parce que man chrétien yi ñi ma sopp ci ay chrétien sax kenn xamul nu mu toll. kon nag waajur yi bàyyi leen xel te wut ay mbuusi galaas ngeen di ko suul ci seen bunti kër yi waxoon naa ko bu yàgg. waaw te ngeen di wattandiku bu baax te saa bu dee taw bismillahi rahmaani rahim 61 fois wala 111 fois. heure bu dee taw heure ut bi moom. baaxut na ma yàlla jéggal ut bi moom doy na waar. ñu bari sax waxuma la deret yi tuuru waaye yi ngi ci gis ci ñuy yàq seen liggéey ñuy daanu ñuy nangam accident yi. accident yi. téere bi juróom-ñaar fukk laa koy wecceekoo. wax accident juróom-ñaar fukki dërëm laa koy wecceekoo. ut bi non lëndëm na. la ilaha illallah sëñ Fallou bu waxee rek wax na benn yoon lay wax wax leneen jàll ci ndax bu waxee rek xam nañ ni waxantuwul ndax li koy waxloo du ko waxloo rek lu dul njariñ wala tamit du ko waxloo lu dul lu war a ñëw mu àddu ci. sëñ bi dañoo gis ki nga xamante ni moom mooy capitaine Traoré di yëkkanti ay kàddu moo Macky Sall mu mel ni sax am na kàddu yoo xamante ni ñagas-ñagas am na seen diggante bañ naan sax boo moytuwul na ma yàlla baal ku coup d'état mën na amat ci réew mën na am ci réew mi donte ko sax xaaruñ ko fi ñaanuñ ko fi sëñ président bi cat njëkk jàpp ba mu feeñ ci moom ba ñëpp xam ne kii cat a ko jàpp. waaw ci Macky Sall lay gën a feeñ. cat moo jàpp Macky Sall. li wax ci kanam lañ koy comprendre samay mbir noonu la demee bu ma koy soog a wax duñ ci sax bàyyi xel mm-hmm. waaye dañuy dem ba yàgg ñoom ñëpp ñu daw ñëw président bi cat sembal bañ xam ne carrément kii tiim nañ ko yërëm ko xam ne kii nag cat moo ko gàllankoor ci président Macky Sall lay gën a feeñ ci président yi fi jot a jaar ñëpp maanaam gàllaajam wàllu mystique yooyu moo moo moo néew jamono ji wala moo moo moo baree dul doole bu xasee bay ñëw lépp lay raafale du bàyyi dara xam nga boo taxawee ci ndaw waaw jàpp ci loxoom muy yàq nga jàpp ci loxoom ne ko lu waral ngay yàq ndax Macky Sall dafa xawta liggéey ci réew dina la ne ah liggéey na waaye nangam mm-hmm. waaw après di comprendre li may wax eh, eh, eh. cat moo koy sonal yàlla na ko yàlla musal yàlla na ko yàlla sàmm ndax bu ko yàlla sàmmee tamit réew mi la rek mm-hmm. lépp benn la te it ab jullit la kon yàlla na ko yàlla sàmm te aar ko sàmm Ousmane Sonko aar ko ba dara luy gàllankoor ak luy yàq luy lor bañ koo fekk fee mu nekk waaye waajur yi nañ bàyyi xel seen njaboot gi daal wax dëgg yàlla ñor na ma bi ci topp it wàllu kayitu oto yi même ñi nekk bitim réew mois d'août moom du août la rek même chauffeur si nekk bitim réew. waaw juróom-ñaar fukki dërëm. juróom-ñaar fukki francs. mooy weexalam. ñu ñëpp a ci yam foo mën a nekk ci àdduna ci ci li ñuy wax embrayage oto ci lañ koy takk. Mhm. sook moom da nga indi koy dégg rek romb sax ngir nga def ko ko du yomb. te comme tali bi lëndëm na. Mhm. nañ fagaru rek nañ fagaru. tali bi lëndëm na. te wax dëgg yàlla bu dul mois d'août bi dama koo gis ci samay mbir. Mhm. tali bi lëndam crise ah, li ko wër xonq coy. kon ñuy dugg ci oto yi nañuy wax tamit baa sama kanam siin sama ginnaaw mi mara tudd dëkk ba ñuy dem. Mhm. waxaat ko sëñ. baa sama kanam siin sama ginnaaw mi mara tudd dëkk ba ngay dem na ko ñëpp di def buñ duggee ci oto yi. ndax man maa gis tali bi lëndëm ñuul kukk li ko wër xonq cooy. junj la misaal. xam nañ li ma wax nañ jot na jug jot na junj bi dañuy tëj fi ñu koy tëjee mooy Pape Alé yàggoon na ci kaso ba génn ba ñu bëri yërëmoon ko jotaat na convocation ëllëg la war a wuyu ci. moom moo jot waaye ñi war a jot ñëpp jotaguñ. ah waaw. ñi man dama li may wax dama koy wax mu leer de. waaw que damay bañ nit ñi loru. moo tax su ma gisee luy lore damay génn moo tax yenn saa yi nga dégg ci ku xamul naan ñii moo xanaa duñ gis jàmm. mais jàmm kay boo gisee da sant yàlla ngeen dund ko mu jeex. mais boo gisee luy lore kay ngay jàpp ci loxo jullit bi ne ko bul tàbbi fii baaxut. waaye fi may waxee ak yow daal. Mhm. moom moo jotagum. mooy na ñëpp waaj. nañ waaj. waaj yaa ngi ñëw waaj jot na. Eh. bi ci topp. mooy. na ndaw yëpp jug ci seen yaram yi. nañ bàyyi xel seen bopp. kaaraange ci kaaraange. ndax nit ñi dañoo soxor. Mm-hmm. te dañoo bon. Mm-hmm. te boroom xam-xam yu saay-saay yi dañoo nekk ci réew mi. Ah. kon nag nag ku ne di fagaru. bul ne ndaw laa. bul ne samay at dafa néew. jug leen ci seen bopp rek. bul ne kenn soxlawul. bul wàllu kort. Hmm. li may tëdd di gis mu naan nii di dem. ci biir dëkk bi mun toll ay kort yu ñuy kii rek di sànni sànni rek. na waajur yi jug ci njaboot gi waaye njaboot gi it ñi ci dëgër nañ jug ci seen bopp sax ba jugaale ci seeni waajur yi bul ne nekkuma ci réew mi. bul ne aw ma at yi bul ne nanga sama wàllu jaaro bi nga ma doon laaj nag. sa mbokk yi sonal nañ ma ci. <laughs> wàllu jaaro bi waaw. <laughs> waaye nañ def ndànk rek. Mhm. waaw ndax du ku jóg am ko. Mm, moo tax nañ def ndànk rek. ku ci war a jot rek. <laughs> waaw ku ci war a jot rek ka ci ku ci yàlla dimbali rek. Mhm. wër ni ma koy waxee rek munu ma munu cee leeral lu bari. waaye daal nañ def ndànk rek. Mhm. <laughs> jaaro bi nag moom xam naa ni ñi ci war a jot mooy ñi nga xamante ni seeni mbir a nar a defaru li ma naan ku ndeyam liggéey dëgg moo koy am waaye nag te am ñeen fukki at na leer topp it nga dimbali ma ci mooy appel yi ñi may woo yenn saay mën nañ maa bañ a jot loolu nag du caagi nag ñi may jëflante parce que man ku ma xas bay jëflante moom maa lay mujj woo ba nga yaakaar ne damaa amuk jot <laughs> parce que xam nga rek yaakaar daa foor ndeysaan waaw waaye ñi nga xam ne dañ ma bëgg a jot nag te jotaguñ ma ñoo ñoo tax may wax lu ci ëpp nañuy xool ginnaaw timis ñu di ma ci faral di woo mm-hmm. wa ilaa it buñ jullee fajar ba jàpp 9h 10 mm-hmm. waxtu yooyu ku ma ciy woo te fekk jëflanteeguñ ngir nga jot ma ci dana yomb bu fekkee ne nag insisté nga jotuloo ma mm-hmm. na nga bàyyi message wax ci yow la kan ak li nga xamante ne moom nga ma yittewoo bu ma féexee ba liir ko dinaa la woowal sama bopp ci kàttanu sama borom tabaaraka wa taala na ngeen ma jéggal te xam ne kenn nit laa mhm. te bu ma sañoon lépp baax mhm. te lu ca ne maa sama boppam a cay doy moo tax wax dëgg yàlla jot gi tax ko demee noonu na ngeen ma comprendre rek te jéggal ma bu ma sañoon ñëpp ay am jàmm wallaahi yàlla xam na ko may sant ñëpp di gërëm ñëpp mm-hmm. leen sant sëñ Moussa <laughs> yooyu sëñ Lamine ndeysaan di sant di ñaan déplacement bi ngeen def tànk yi jéego bu ngeen ci jéggi rek suñu borom def ko muy jéego bi yiw dafay leen ci bu baax baax barkib sëriñ Tuubaa barkib yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf ah xol sedd na mbégte amaat na dama naan sax mbëgte la ñuy am saasu ne ak contentement bu ñu jàkkaarloog jëmmam ji ndax du xam-xam kese la am waaye boole na kook yar boole na kook ragal yàlla boole na kook lu mag ñu baax yépp yoroon moo tax yaakaar yi daf fiy bari faw mu bari fi ndax lu fu njariñ am faw yaakaar am fa benn nit la wax na ko léegi te lu ne moo koy bëgg a defal boppam ngir ku ne gis ci boppam ngir ku ne gis résultat ci li muy def te yaakaar naa itam bi mu ko dalee def ba léegi tànki kanam la am amul tànki ginnaaw ndax résultat yi bari na satisfaction yi bari na ba ku nekk a ngi jug jëw jëbal si ko ñun nag ñoo ko war a ñaanal yàlla mu yàgg fi lool ñun ñoo ko war a ñaanal yàlla kattan gi bari mën-mën ngi bari ba ñëpp jariñu ci ñëpp xam ni Serigne Fallou kéemaan dëgg la jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal ñi ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ëllëg ci seen beneen émission jërë ngeen jëf